kontaan nañ sant nañ yalla bu baax it bi ño amee ñoo xam ne bu suñu ak suñu rongoñ fer ñu feral ko topato ñu kooku sant yalla la vraiment dekkando bu neexa dekkal lorul kenn ku mëna dimbalé dimbale mu ngi lay dimbalé te yalla tax té comme niko délégué waxé deful dara ak wu wala deful dara pour nit gis lepp lu muy def ci sutural la koy defee kon koku so dekké ak mom dang koy ñaanal yalla yalla may ko fan yu gudd yalla may ko wér yaram yalla yokk barké bi ñu ngi nag sant suñ personnel enseignant yi nga xam ne ñoo fi nekk ak enseignante yëpp nit ñu am Pastef lañ lii bi mu amee su leen neexoon ñu toog ne ñoom ay jàngalekat lañ nit ñi communauté bi dina seet pexe yu muy def waaye ku danga ne da ngaa wane ne jàngalekat laa ba pare wane ne nag man mère de famille laa wala de famille ñu bokk ak ñun lépp bokk ak ñun tiis bi bokk ak ñun coono bi ba li am yëpp yàlla dogal bu am kon ñoom dañ leen di ñaanal yàlla gis nañ gis nañ taxawaayu directeur bi fi ñëwee ba léegi tànk kanam lañ gis gis ñu benn tànk ginnaaw kon loolu dañ ciy sant yàlla bu baax délégué ñu ngi lay sant ñu ngi lay sant yow gis nañ taxawaay bi bay bàcc gis nañ ko waaye lépp nag ak suma rakk bii moom nga xam ne vraiment lépp lu muy def lu wax rek mu ne su Mamadou Ba waxee wala lu mu kii rek décidé rek maa ngi ci gannaawam kooku yi dam koy sant yàlla muy siiti parce que loolu it confiance la si ko neexoon ne maay président CGE bi maay wax maay def waye lo wax mu ne lu mudu Ba wax rek man pare na ci kon ñu ngi sant ñu ngi gërëm ñi fi dekk ñepp nak képp képp kuñ tuddu sa tour ak kuñ tuddu sa tour gis na ñepp sama ban nenn jaay gis na jigeem ci dekk bi sama ña ngi ni tok soxnam ñepp ngi ni waaw pap pap lay mom mo yori jeunesse mom mom c'est la jeunesse mom ñom ñoo yori nettoiement école bek lepp lu bax ci koñ bi yalla ak ñom kon dal suñu limé rek dina am ñu bari ñuñ pour gartal dal señ bi gërëm nañ sant nañ ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla mi am fay yàlla yàlla fay leen yàlla mi nga xam ne mooy yokk lii fi mu jóge yàlla bu mu fa jeex yàlla na ko yàlla ful yàlla nañ yàlla defal jàmm defal ko ci koñ bi defal ko école bi ñu may ñu ndam résultat yi ñu am cent pour cent yi yàlla nañ ko di am ba ñu ñu fiy jóge alhamdulilahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu am kontaan am mbégte yéen dalal ci école Seyni Mbodj Euh, di jiital nag euh, euh, nuyoo sëriñ bi vraiment di koy ñaanal bu baax a baax yàlla yàggal ko fi vraiment kontaan nañ ci moom bu baax a baax a baax a baax di wax nag ci turu IEF Kaolack commune ak turu jàngalkat yi nekk école Seyni mboj donc ku nekk directeur xam ne administration la fi nekkal waaw doyen Mamadou Ba li mu wax vraiment kàddu rafet na lool délégué également la même chose vraiment damay topp seen tànk rek. xam na xel ne euh, affaire bi mu amee euh, ñi ci war a dox yëpp dox nañ ci délégué sonn na ci bu baax a baax euh, ku ci mel ni doyen Mamadou Ba Ndiémé Sidi Samb ak enseignants yi amul kenn ku ñoo xam ne toog toog nañ seetaan ñëpp ci jàpp waaw bi amee nag Ndiémé ci boppam moom ma envoyé benn vidéo vidéo bi dama ko envoyé directement IEF IEF ñu noté ko dama vraiment jot naa léegi euh, bi euh, bi euh, ñëwee jëba ñëwee également di ma wax ne gis nañ benn partenaire bu ñu mën a jàppale bu defar toilette di ah man loolu vraiment kontaan nañ dañ kontaan baax mu ne sëriñ bi ne fii la ñu tudd Baye Baye vraiment ñu ne ko vraiment Cheikh baay Cheikh baay ñu koy gërëm di ko sant bu baax a baax a baax a baax di ko ñaan yàlla na yàlla dolli li mu mën ren yàlla na ko mën lépp la déwén na ko yàgg mën yaan yaay ñu ko gërëm nañ ko ñun jàngalekat yi bu baax a baax baax baax ndax am na ñu fi ñu fi ne te defuñ ko su ko neexoon te te xaalisam vraiment ñu ngi koy gërëm di ko sant bu baax a baax a baax baax léegi nag euh, sama kàddu du ci gudd parce que njëwee muy moom laa ko woon pour mu wax ci sama kàddu ah njëwee sax dama man suñu woon xawoon na am ngant waxoon nga njëwee ne ko est-ce que dama mën a revenir mu ne léegi il faut que nga ñëw parce que yaay directeur mu wa ah na na dinaa dem tu na brama ma doon jàpp naa ngir vraiment eh, di rafetlu vraiment jotaay bi di gerem sëriñ bi encore une fois di gërëm eh, le CGE e, doyen Mamour Ba Sidi vraiment bu ba vraiment dañ ma yaatal di liggéey ak man vraiment eh, di gerem asa également ndax résultat yi def ren vraiment suuf mas am am def 100% de réussite au CFEE à l'entrée en sixième vraiment lu dem si daal saluer yéen di gërëm di sant bu baax a baax a baax a baax jërë ngeen jëf di nuyu notable yi toog fi yëpp nuyu directeur di nuyu sëñ Aliou Cissé Niass bi nga xam ne moo fi teewal jarbaatam suñu jarbaat Cheikh Baye Oum di nuyu Sidi di gërëm délégué ci taxawaayam ndax délégué bii ngeen am de wax dëgg yàlla ñun dañ koy dañuy des ak moom fu ne waaye taxawaay yëpp mooy taxawaayu coofa moom maanaam équipe mu àndit fii yëpp kon bu ñëwee fii wax dëgg yàlla ci feefam dafa dafay baax ñu seddal ko loolu jox la itte koñ bi am na ci taxawaay boo xam ne boo xam ne kalo yëpp maanaam ràññ nañ ko amul benn réunion boo xam ne dafa concerné délégué lu jëm ci jox ak bi ñu absenté donc vraiment ñu lay ñaanal yàlla yàlla may la gudd fan ba gët sa sa bàyyi aw fan euh, li xew tey nag maanaam mooy li nga xam ne doon lu duur lu bees parce que œuvre sociale bi tey Cheikh Baye def je pense que yàgg na ko def moom naturellement loolu mooy dundam di ko def ci sutura ak ci teggin te ndax dafa def ngir yàlla rek moo ko tax a jóg yàlla nag bu leen boolee ak ak moom ci dëkk bii tey ci coofak ndax coofal ak Medina dañu am histoire bu leen lii parce que quartier bii tay mooy quartier bu njëkk ci Kaolack quartier quartier bii tey directeur mooy njëkk ci Kaolack doo fag dëkk buur la woon tey mën nañu waxante maanaam sëti maanaam sëti maanaam Seyni Ndiaye bokk na ci rang imaamatu bu Medina Baye kon ça veut dire que ñoom dañoo jaxasoo ak Medina ci deret Cheikh Baye li mu def tey def na ko fi ñu ko def ndax coow fa continuation Medina Baye la Médina mooy cof ak mooy Médina ñu jaxasoo ci lépp nag Cheikh Baye mi def lii tey waajuram bu góor professeur arabe la woon fii la enseigné ba mu génn école normale loolu maa ngi koy wax tey boobu ñu ñu ngi fii nekk xale di def sixième mu yore ñu arabe donc bàyyam professeur arabe la woon ba mu génn école normale école yi mu njëkk enseigné coofa gii ci la bokk. donc ce qui veut dire que moom li muy def xëy na sax moom xamul loolu waaye def na def na loo xam ne vraiment taarix taarix na ko bind bu baax a baax a baax ndax bàyyam tey yal na ko yàlla yërëm bu fekkoon na mu ngi dund léegi dana kontaan ci jëf ndax classe bële nit ñi nekk fii foofu la ñu doon arab kon Cheikh Baye ñu ngi koy ñaanal yàlla di ko gërëm bu baax a baax a baax di leen ko dénk yéen a la coofal ñu leen koy dénk xam ne seen doom la. donc ku ñëw ba tabax lii tey dëkk ak yéen dëkk ak ci wàllu wàllu xarfu gi dëkk yéen ci wàllu penk kon bëgg na coofal moom nag lañ ko xamee ñu ko meññ yëpp maanaam ay missionnaire Baay Ñas lañ muy maamam bu ko meññi ak maam Mataram yëpp ndax am Amady Ñas bi nga xam ne moo jur maami paapaam maanaam moo nekkoon borom dëkk Taïba Ñaseen bàyyi defoon ko maanaam mu nekk ilimaani jumaa ji ca tey ba maa ngi wax ci jamono yi Maam Alaaji Abdoulaye Niass kooku tey maanaam doomam tay bu jigéen moom mu jur maanaam maamam bu góor moom mu Cheikh Ahmad Daam bàyyi sañu àll mu tey donc kii missionnaire pays bi la ndax nit lu muy def rek maanaam de maanaam boo te selloo maanaam amul hasard maanaam am na yoon donc ñu rek la mën a mel kon ñu koy ñaan yàlla yàlla na ko yàlla dëgëral yàlla na yàlla yàlla yokk wërsëgam yokk ma xamam mu gën a koy te may ko wér te mosul ko ci dog-dog ak gàllankoor yàlla na ak niw yoon donc ñu baax jox seen mbokk ngi nii seen doom a ngi nii seen xarit a ngi nii en tout cas xam naa ci moom daal loo xam ne daal lépp loo xam ne moom éleen na ko mbir la éleen na ko cof dañuy wax àll jàtta dawee mat ñu ne ah kay àll yam ne na moom ci amul mat seen àll nga santal lu Baay Cheikh Baay Umu nga ne ko jërëjëf jërëjëf moom ku deful dara du ko dégg te tey suñ tuddee Serigne Aliou Cissé nga ñëw teewal ko nekk nijaayam Pape Omar sànq tënk na ko ci ay wax dafa nekk relation boo xam ni nii Cheikh Ibrahim Niass ak sunu waajur seeni mbóoj amoon nañ ko Serigne Aliou nii ñu ko tuddee takk doomu seeni mbóoj kon tey boo ñëwee. yow yaa dellusiwaat siwaat tey nijaay yàlla yàlla guddal sa fan nga xam ne bëgg nañ ci sa jarbaat ci ni muy jàppale dëkk bi saa su ne gërëm tamit Pape Omar mi nga xam ne tamit génne na fi histoire boobu nu xam ne loolu démb moo dellu siwaat fii tey ci Cofak mais nag kenn du mën a commencé ci amul ñuy sant ci lii su amee yàlla si seen loxo la ko jaarale d'abord muy suñu délégué de quartier Ndéna Mbodj ak madame Diaw Ndiébé Seck ñu jaajëfal leen parce que tamit lii bi mu amee xel yëpp fattu nañ mais yéen seen xel fattartiku na ngeen dem ci moom mu ne dinaa jël lépp en charge vraiment merci beaucoup merci Baye Cheikh Baye Oumou ñu koy jaajëfal ñu ngi koy ñaanal yàlla coofak nag moom lépp lu fi di def na nga xam ne tànki kanam rek ngay am suñu wajur wax nañu ko muy papaay délégué mii nee na coofa képp ku fiy def tànki kanam rek ngay am mais ko ko koy xeexit tànki gannaaw ngay am kon nag Baye um Baye Cheikh Baye Umu bu mu ñëwee def teraanga ju mel nii parce que xaalis dafa sax sa xol neexut a joxe seen Cheikh Tidiane si dafay wax ne mu ne poche du riche xol mooy riche. kon tey su ñëwee jël ay millions ne maa ko jox école bi ngeen dem defar seen i toilette defal la ko parents d'élèves yëpp nag ci turu parents d'élèves yëpp ci turu askanu coofak yëpp ci turu délégué ci turu notable coofak yi ci turu équipe pédagogie bi ci turu ñëpp ñoo xam ne nekk nañ coofak ñu ngi leen jaajëfal. defe naa bëri na borom alal yu nekk Kaolack yoo xam ne ñëpp dégg nañ yuuxu bi parce que Alfayda ku ko dégluwul bëriwul ndax am na ay kilifa yoo xam ne ban ma wooyee xëy na sax génn ba ñoom neexu leen woon wax buñ sañoon du ma génn. mais Cheikh Baye moom bi mu ko déggee daf ko def contentement def ko yit xëy na ne bu ma ko teeloon yëg sax bu ngeen dem rajo ndax dama koy saafara wooñu fa saasi nañu xool leen li ngeen bëgg ma defal leen ko biñ ko ko waxee tegu ci baat dañ ko ko wax lañ ko laaj daf ñoo jox lu ko ëpp ci rajo la wax Cheikh ñun lañ ko laaj daf ñoo jox lu ko ëpp nañu dem leen ngeen commencé dinaa leen fekk si ñu santee ko ko gërëmee ko ko parce que am na ñu nekk si dëkk bi ñu mu waroon. am na ci ñi ci dëkk bi ñoo xam ne mën nañ ko mais defuñu ko kon moom mi ko def ñu ngi koy sant ñu koy gërëm di gërëm tamit ñi nga xam ne ñoom ñooy saytu fi école bi xëy na nag seen doole àggu fa waaye ku woon seen xol yéene ba ma a fa di commencé suñu baay bàcc ma le toog nga xam ne mooy kilifa gi fi gën a mag ci suñu papa yi fi tol toll nii âge bi mu am day dugg ci école bi fii sote ko di ko bale mbaa mu koy bay te duñ ko fay ñaar dërëm duñ ko yëg da ngay xëy gis mu bale wala nga xëy gis mu bay te mu ngi yor ay njaboot yor ay borom kër la yor biir këram mais malgré tout sax day dugg defal loolu école may sant équipe pédagogique bi nga xam ne ñoo nekk école xam nga lu man may rayante man rek maa nekk jàngalekat boo xam ne maa dëkk ci koñ bi nekk ci biir école bi jàngee fii seeni mbooj ñi ma jàngaloon sem da nekk ak samay collègue ñu am ay enseignants yoo xam ne dañuy jugee Mongre jugee Brazzaville jugee fu nekk di ñëw am nag yéene bu ñu am ci école bi am jàngalekat yu farlu lool ma ne duñ ma gën a gore ginnaaw ñu jëlee seen yéene xool ne doom yi ay doomi jàmbur lañ mais jaral nañ leen lu ne ay jàngalekat yuy jënd fourniture di inscrire ay xale di leen may ñu leen di inscrire ji te dëkkuñu fi man mi fi dëkk damay rayante ba école lu ñàkk dina ko am <coughs> jàngalekat yi lu nekk la ñuy dégg te bu leen neexoon ñu génn école bi ñaan affectation dem seen kër yi toog ku ci nekk sa kër jàkkaarloo ak école parce que xam naa leen bu baax. mais dañoo rayante fii liñ am lépp dañ koy joxe fii ma bëgg coofak ak di leen delloo njukka fu ñu toll xam ne ay jàmbaar lañ jàngalekat mënu leen parce que damaa nekk ak ay jàngalekat rajo laay wax jàngalekat yéexee coof ak fii jàng ku leen yàpp da leen a xamul inspecteurs yi ñëw ci école bi fii yabuñu leen parce que xam nañ liñ fiy fekk te ñoom ñoo leen war di leen di leen di leen saytu ñoom ñooy natt seen xam-xam kii nag sa xam-xam nag bu la yabul keneen ku la yab daa xamul moo tax man mi ne ci école bi ma bëgg yéen waa Coofa ngeen fonk ñi ngeen fexe ba buñ manqué dara Cheikh Baye nag ñu koy sant ñu ngi koy gërëm ci lii mu def ndax xol la lii mooy xool école ndax toilette mooy xool école waaye école bi yaramu màgget la foo laal day metti yéen a ngi koy gis foo laal day metti ma wax ko benn kàddu gis nga fi def sam papa da doon wax ni boo amee benn mbir bëgg ci ñetti ngërëm may ko doom xalé ba gëreem la yaayam gëreem la papaam gëreem la nee leen ko jëfëm ji amna ci ñetti gëreem ndax yaay yaa koy gëreem baay yaa koy gëreem te xalé yi ku dugg ci toilette bi bo génnee di nga ko gëreem ñun ñu ngi sante Cheikh Baye Oumou ñu ngi koy sante ba sante yam diko ñaanal lu mu mën ren bu déwénee yalla na man lu ko ëpp école ñu ngi koy sante xëy day soog duggal loxol école mais Cheikh Baye ñun xam nañ ay jëfëm ci koñ bi kilifa la goo xam ne day toog ba weer bi sori mu def ay enveloppe dugal ci biir kër yi te borom kër guñ jox enveloppe nga mën cee jënd ñetti saako ceeb mbaa ñeent man xam naa ko te sosaluma ko barke Seydina Mohamed dama ko fekkee mu di ko jëf kon ñu ngi koy sant di ko ñaanal yàlla lafal ko cat képp ku koy xaar yàlla nga xaddi doyen dañu bëgg ñun tamit école bi niñ ci taxawee ba lii fekk la ci yàlla nañ ànd ak yow ba lépp sotti yàlla na la fi leneen fekk ñuy tàllal Cheikh Baye encore suñu loxo ne ko ñun de bu ñu sañoon sax dañ koy def suñu parrain ndax école bii jëf na fi jëf ju rëy ndax nit may na trois cent mille def ay convoi joxe ay tiset ni ñi sol ko Cheikh Baye ay millions la may yebalal ñu benn nit ni jaayam Cheikh Baye bu ko neexoon xoolal dañuy woo ay ndënd tant ci biti di tëgg parce que lim fi indi nit indi na lu ko yées solal ay nit ay mbubb ak ay tiset ñuy yuuxu te lii ñu def xam naa ne neexu ko man de seet nañu Cheikh Baye li ñuy def neex ko maa ngi sant maa ngi gërëm xëy na li duuf ci nag bi yëpp xajul ci cin li mais Cheikh Baye man suma ma jàkkaarloo moom moom dina xam ne ñun sant nañ ko gërëm nañ ko Alfayda yéen tamit vraiment man maa ngi leen di sant daal ku amati lu jaaxal ci réew mi dañoo seet si Alfayda ndax bu fa jaaree tamit day jaaxal. waaw. jërëjëf kon yaa ngi dégg beneen nouvelle ñëw ne nee na ren Cheikh Baye umu nee ren. dina jàppale waa seeni mbooj ay fourniture ci ñu ñëw nijaayam tamit ñu ngi koy sant parce que tamit am na loo xam ne bu yeggee rek say mbokk la ca bàyyi Cheikh Baye tey bu ne woon eh nijaayam ne ko bu fa dem du ñëw mais nijaayam moo ñu jox lim ñu jox lépp te wàññiwu ci lenn yow tamit ñu ngi lay ñaan yàlla na yàlla yàggal sa taxawaay yàlla bàyyi leen ak seen jarbaat bi yàlla yokk ko. Eh, bu ñu waxee ne Cheikh Baye baax na waaye danañ wax ne yow tam jàmbaar nga ndax eh, ci sa làmmiñ di jigéen da ko xam jigéen. xam ne am na lu ko yàlla defal jigéen moom école la mooy jur lu nekk donc su demee ñu am ay jafe-jafe ci wàllu toilette toilette yi daanu ba màbbu te wax nañ ne bi muy daanu ñaari policiers ñi ngi ci biir mais yàlla suturaal leen ñu génn te dara jotu leen donc bi mu ko déggee Alfayda rek la oo délégué mii waxtaan ak moom oo ma waxtaan ak man ne ma daal loolu daal dama bëgg ñu saafara ko nu mu gën a gaawee balaa école tijji li ci war mooy seet leen entrepreneur mu wax ñaata la ma joxe xaalis bi ñu defar ko balaa élèves yi duggaat ci ci balaa élèves yi duggaat classe muy geste boo xam ne geste bu noble la geste la boo xam ne ñëpp dañ ko war a saluer ñun ñi dëkkee coof ak gii dañ ko war a saluer bu baax a baax a baax a baax ndax amul lu suñu école bii nii école bii nii man fi laa jàngee primaire ba sem 1 ba sem ba C1 door a dem école Sam te paaw mar Omar li ñu sànq. ne papaay Cheikh Baye jàngale na ci école bi effectivement jàngale na fi donc moom fi mu war a def la def doom la joo xam ne daal comme yàlla moo ko séddu coofak ñun waa coofak nañ ko téye ak fukki loxo ndax euh, balaa may ñëw wax na ma ne ma dinaa dimbale sama rakk yi nekk ci école bi di jàng ak sama jarbaat yi fa nekk ci seen wàllu fourniture ndax ku nekk xam ne ne école tijji na te parents d'élèves yi am na ñoo xam ne seen loxo jotul seen gannaaw donc ñu fay jàngé samay rak lañ dana leen dimbalé ci walu kaye ak li jëfëndiko donc o euh, délégué dafa yakamti wax ko ngir bëgg ndax mom itam lépp lu muy dox ci quartier bi rek lu rafet la mi ngi xir Cheikh Baye ci mu défar ciofa ci gamu gi am mbedd yu bari yo xamné mom ak délégué ñoko liggéey lolu wër nañu ñun ñu dëkke ciofa dom la jo xamné dal mi ngi def œuvre sociale dañ ko jappalé dañ ko ñaanal te li ngeen ko sas ci école bii pour mu nekk seen parrain nangu na ko loolu moom man mën naa jël engagement ci turam ne nangu na ko ndax euh, tey fu mu mënti def fu dut fii coof mu dëkk defut def def def na leen mi ngi def feneen waaye nañ ko ñaanal yàlla li muy def mu ëpp coof ak ndax ñun coof lañ am waaw lépp lu muy def daal na ëpp na coof ëppale ndax ñun coof lañ am coof lañ dëkk bi yàlla di séddale suuf fii la ñu sédd ñu dëkk ak yéen donc moom lum mën ak lum mënul dana ko def. di gërëm directeur bu baax di gërëm ñi fi tew ñëpp di wax ne daal œuvre sociale bi ni yalla na ci yalla def barké na entrepreneur bi gaaw xaaliss baa ngi nii na jox na mako dana ko yëkëti légui tekku ci loxo délégué mu tekku ci loxo trésorier bi ñu dem uti entrepreneur mu tabax ko balai école tijji insha allah taala li ci des balai école tijji danañ ko indiwaat fi ni joxé ko comme niñ ko comme niñ joxé li di ñaanal mom Cheikh Baye yalla yalla guddal fanam yalla yokko ko te bañ ko wañi yen ñi fi teew itam yalla yok leen te bañ leen wañi di gërëm presse bi nga xamne ne itam ñoom déplacé wu nañ ñëw ndax vraiment ñom itam kuy def lu baax rek bo leen ooyee danañ ñew couvrir la ni mu si siiwalal leen ni mu ndax li tay bu amé ci presse la jaar al fayda ci la jaar ba yalla def ci solution bu gaaw bi ni kon nak ñi ngi sant ñi ngi gërëm kaddu yoy lañ ñu yëkëti won ci touru Cheikh bay wax leen ko gërëm leen ñaanal leen te wax ne daal incha allah taala mi ngi ci seen wét mi ngi ci seen gannaaw du bàyyi école bi du bàyyi ñi fi jànge du bàyyi enseignants yi nga xam ne ñoo nekk ci école bi ñu ngi gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah ci gis-gisam gu yaatu Mawlana Cheikh Ibrahima Niass moo taxawal Fonds dina Baye ngir gunge xadara gi ci projet yi mu am ci wàllum yokkute xam-xam ak wér-gi-yaram Fonds Medina Baye bii nag sunu xalif Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass rahmatullah aleyhi moo ko dekkal xalifa gi Cheikh Mouhamadul Maye Ibrahima Niass xaadimul umma dooleel ko ci fond dina Baye am na lim gu am solo ci walum jéego yu mu liggéey bi door di tambale, ak pas-pas wu bokk leen ci ñi taxawal dina Baye lu am lu way man ci 77 481 04 04 ak Orange Money bah Wave ak xidma mo koy هنيئا لإبراهيم لاح هلاله هلال بدا للناظرين جماله هلال ربيع فيه جاء محمد فتم لنا البشرى وعم نواله